ne sincèrement sànq damay yuuxu comme dañ ma ne gañe noo non gañe nañ jeex na non woo léegi sëñ bi nag parce que sëñ bi non dinaa ko dem dem dem euh, dem dem ba xaw ma dem dem dem sëñ dem dem bi non dinaa ko woo noo du nit <laughs> yàgg na wax nag nee na ma saay du Macky Sall du du Ousmane moo tax ma yàgg leen wax ni du Ousmane Sonko gars yi ñëw ñëw non sëriñ bi nag Casamance nee na Ousmane Sonko day dem man leen du usmaan Sonko du Ousmane Sonko moo tax ba mu ma ko waxee na ma demal nga ne leen mbir ma jomaay la moo tax ma ñëw ne leen mbir mi jomaay la xeex naa ñoom sax fii ci live yi Abbas buubu rek a ma jàppale woon Abbas buubu Ndiaye moom rek a ma jàppale woon ñeneen ñi ne naan man non xanaa lay xaar ku Sonko joxoñ man leen da ngeen mandi wala jomaay la jomaay la boobu yëpp boobu sëñ bi moo ma nee leen jomaay la nee leen jomaay la Sonko mënuñoo fexe fexe ba mu dem jomaay la moo tax leen jomaay mooy Sonko Sonkoy jomaay si seen ne Sambaay bàcc hey mbir ma jomaay la ayca bal ba tàkk na le 3 avril uy uy uy le 3 avril incha allah uy uy uy uy le 4 avril ah bilaay walaay ah! cakas bin bin cakas bin bin cakas bin bin xool leen moo laa nu muy eh! cakas bin bin cakas bin bin xool leen Mollah nu muy duggee biir Sénégal cakas bin bin cakas cakas bin bin cakas bin bin cakas cakas bin bin eh bin bin cakas bin bin eh, cakas bin bin ay ca préparé leen ko na tàng jër jër jër jër jër laay lay la laa tere ngeen de dëkk bi cot non non Sonko ngi jubilé wallaay Sonko ngi jubilé Sonko ngi jubilé fa ne mi ngay jubilé non të të yàlla du nit yàlla gars yi ni ñu la non Sonko <laughs> non gars yi ànd ak Sonko mais xamuñu Sonko dañuy ànd ak Sonko bëgg Sonko nag loolu am na bëgg Sonko te yàlla tax mais xamoo Sonko ñu ci bari xamuñu Sonko wallaay billaay <laughs> xamuñu <laughs> naa leen benn candidat la Sonko am benn candidat muy Diomaye Faye keneen ku fi réclamé dafa am la la fa yóbbu kii de xaritu Sonko la wala kële dañoo ñii ñëpp dañoo dem waxoon naa leen tojaloon naa leen mbiru Habib Sy yéen a ngi fàttaliku léegi nag Habib Sy day ñëw day ñëw bokk ci ñun. ayca euh, euh, Cheikh Tidiane day ñëw bokk ci ñun nee naa leen benn candidat la Sonko am man nag nee naa leen samay lu tax samay wax bëri problème mooy bu ma waxee. affaire ba du ñëwagum duñ ko xam moo tax dañuy werante weddi ñi yuuxu waa ah! mais Sonko rek moo moo xam ni mun damay ajj ay waxam damay aj ay technique am parce que dañ bokk vision moment boobu noonu gars yi naan ñu nañ dañuy xaar ci Sonko man leen Sonko jox na leen jomaay loo tax ngeen bëgg a bàyyi jomaay jomaay daanuwul jomaay daanuwul xam nga lan moo sauvé jomaay laaj leen ma ko parce que bu fekkoon dañuy éliminer jomaay man jomaay jàpp moon dañ ko éliminer depuis bu ma gisee candidat APR yi nga xam ni à la dernière minute lañ génn doon ay candidat te ay te ñooñu waa APR ñoo leen bàyyi pour ñu dem dooni ay candidat pour après calculer deuxième tour ñooñu ñëw xam nga ñooñu dañoo génn ci parti bi avant un an donc ñooñu bu ñu leen éliminer rek dañuy éliminer Jomaay mais ñoom mënuñu éliminer ñooñu parce que seeni candidat la moo tax mënuñu éliminer Jomaay moo man ma xam ni Jomaay mënuñu ko éliminer parce que mënoo éliminer Jomaay bàyyi fa Boun Abdallah <laughs> lu génne lu mën a génne Jomaay mooy génne Boun Abdallah lu mu te ab te Boun Abdallah moom mooy candidat wu Macky Sall à deux cent pour cent moom la Macky musa mus a gëmloo ni yaay sama candidat kon Amadou Ba musul doon candidat Macky Sall te yàgg naa leen wax ni ñaar ñooñu jubóowuñ seetlu leen dara depuis pas mal de temps ànduñu ñoom ñaar musu ñoo juboo nag. candidat gis nga Amadou Ba du am tous xam nga kan moo fi teg Amadou Ba ñoom Moustapha Niass maanaam benn Bokk Yaakaar ñoo fi teg Amadou Ba te buñ koy choisir sax Macky Sall nekk fa dafa voyager parce que bu ko ko fekkee. musul ànd ak Amadou Ba dafa toroxal Amadou Ba te xam na ni bés bu ko Amadou Ba jekkoon toroxal dafa toroxal Amadou Ba Amadou Ba nag garder loolu donc moom moo tax mu mu yàgg gëmloo Boun Abdallah Dionne ne sama candidat kon bu fekkoon dafa téye Boun Abdallah Dionne day téye mun na téye bu boobaa mun na téye Diomaye mais dafa choisir moom am kii nga xam ne mooy Boun Abdallah jon mooy candidat am candidat Amadou Amadou Ba xam nga ñan la ñoom Moustapha Niasse ñoo ko choisir Macky Sall choisir ko ma ne leen dañoo am problème dañoo yàgg am problème ba nii Amadou Ba mi ngi goos Macky Sall la ngi droite bu muy bu muy inauguré gis ngeen bu muy inauguré euh, BRT bi gisuleen leen ko fa lu muy <laughs> àndul ak moom ci dara kii mi ngi gauche kay ngi droite Amadou Ba mi ngi commencé tax di ko di ko rof di ko rof tàngoor di ko rof galgal naan woy man bu ma ñëwee du ma copier ñu ne la yow yaay candidat euh, de la continuité nga ne bu ma ñëwee du ma copier coller mooy la loolu mooy lan moo tax Macky Sall jàppal ko temps de gis nga Macky Sall bu mu noon lekk Amadou Ba jamono ji da koy warax da koy warax mu génn ci loxom jubóowuñ de lu ma la yàgg naa leen ko wax jubóowuñ de dañuy gars yi dañ leen di jéem a jubóo dañuy parce que Amadou Ba xam lan moo ko metti du ma fa yàgg sax Amadou Ba xam lu ko metti moom nee na moom mënul comprendre Macky Sall ne moom da koo jiital ba pare am ay dissident ay gars yoo xam ne ñoom nanguluñ ko ñoom nanguluñ ko ba pare ànd ak Macky Sall di di nekk ak Macky Sall moom moom mënul nangu loolu ku ku ci mel ni imbécile bi nga xam ni moom moo porté plainte kii eh, naan diffamation pourtant kooku dafa taxaw devant tout le monde ne ànduma ak Amadou Ba te ba léegi mi ngi biir palais di liggéey ak Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñi ngi ànd ak Macky Sall ba pare contre Amadou Ba Amadou Ba nee na moom mënul comprendre lan moo tax Macky Sall jéemul def dara pour nit yi nga xam ne ñi ngi ànd ak moom di ko xeex wax fépp ne ànduñoo ak moom ba pare Macky Sall jéemu leen sax rëkk seen digg <laughs> donc il a très bien compris loolu yëpp Sonko nag ku ko xam la il est très renseigné nag nee naa leen Sonko il est méga renseigné léegi nag loolu ma leen waxoon moom la leen euh, Cheikh El Malick waxoon te waxoon naa leen ko nag El Malick bërki démb la dem télé TFM wax leen ko ma ne leen euh, boo leen gisee Habib Sy Habib Sy boobu noonu ma leen doon wax ne leen Habib Sy c'était juste l'arbre qui cache la forêt mais du woon ci dara parce que ay moromam yu newoon yeeyu askan wi yëpp dañoo dem dañoo dem loolu moo tax Habib Sy rek ka fa desoon moo tax Sonko mujj ko puus pour mu pour pour mu dem moo tax mu ne bu Sonko bokkee ma bàyyi loolu moo fa boole Habib Sy loolu kese moo fa boole Habib Sy loolu te loolu bu ma koy wax fii boobu El Malick taxawagul fenn wax man leen Habib Sy parce que maire boobu noonu Bambey dem na pour doon candidat euh, Euh, euh, kii presque ñu nekk euh, jàpp ma seen tur yi mais ñu nekk yeewi askan wi yëpp ñoom dem nañ pour dooni candidat donc moom rek wax ci defoon benn paa boo xam singleton vide Sonko ne ko woo gaayam mooy groupe parlementaire am beneen bi ne leen jàppale leen ko pour mu dem parce que moom buggul kenn ku mer Sonko buggul ku mer bu non waajooju wëliw la barke alxuraan wëliw la buggul ku mer buggul ay frustration jaral na ko mu jël lu war a lekk jox ko nit mu lekk moom lu sukuraat kooku mooy Ousmane Sonko pour ñu ko xamul kooku mooy Ousmane Sonko c'est-à-dire yaa koy wor mais du la wor yaa koy def ay yu bon mais moom du la ko def moom même bu desee benn bonbon boo xam ne bu ko lekkee dund mu jël ko jox la ko yow moom moom moom dund ci tumuranke kooku mooy usmaan Sonko kon ñëpp dem nañ ñu ne woon yeewi askan wi mu des ku dul Habib Sy mu mun a woo gars yi député mi leen jàppaleel ma ko ngeen bi loolu moom moo ko yóbbu mais benn candidat lañ am encore une fois benn candidat lañ am et dañoo bëgg suñ force yëpp dajaloo ci ki nga xam ne mooy Diomaye Faye ñii woo gars yi nag ne duñ fi jël sañuy carte di ko tasaare duñ ko def de premier lañ bëgg a pare premier tour lañ bëgg a pare ak gars yi ak bëy wuyu bànn duñ fi nag ñi ngi woo gars yi ñi nga xam ne dañ ne bu Sonko bokkee ñoom ñoom dañuy bàyyi Sonko bokk na parce que kii nga xam ni mooy Diomaye fay mooy Sonko Sonko mooy Diomaye fay te Sonko dafa war a wu te Diomaye Faye dafa war a libéré ñeneen ak ñeneen donc dañoo bëgg suñu force yëpp dajaloo duñu partager suñuy force nag bay def ay deuxième tour ki troisième tour ki quatrième tour na ñëpp ñëw autour de Diomaye Faye na ñëpp ñu def benn force vive de la nation dem nangu yi ci premier tour jàmm na ñooy ñu demoon ñu ñibbi woon ñibbi si ñu newoon ci kaso yi génn ñu ñu ñu rayoon wala ñeneen ñi ñu wutal leen justice ñu loolu loolu la ñuy def donc force yi la ñuy boole duñ diviser les forces donc ñu ngi appeler tout le monde autour du candidat Diomaye Faye te loolu mooy dëgg def ko benn campagne bu saf sàpp benn benn nit ñun ñëpp protéger ko taxaw Sénégal yëpp ñu sensibiliser leen ci nit kooku noonu dañuy am ndam li ci premier tour dem sañu yoon. duñ fi nekk di diviser ay force comme ñoom nu ñu def ñoom deuxième tour la ñuy calculer moo tax ñu diviser force yi ñoom wut seen yeneen candidats yoo xam ne ñoom ñoo fa nekk. léegi nga xam ne ñoom bu ñu demee deuxième tour ñooñu ñëw rallier ñun kat defuñu loolu premier tour lañ bëgg a pàcc waa ji toog ak moom mu jeex mu dox ñu dox. jàmm na ñooy premier tour ñu pare ci tënk affaire yëpp dem sañu yoon ñu fi nekk di dem deuxième tour lëndëm ñu ñu ñuy indi dugg tour lëndëm mag yooyu premier tour Sénégal dañuy venger wu premier tour ñu pare donc na candidat yëpp ñëw au tour de Diomaye fay voilà donc loolu la ñu woote donc les